ci tali bi opération wu jaayum xar yi ci feetu tabaski bi tàmbali na ginnaaw ay bés ñu ñàkk ndax manifestation yi. fii nag rasu xar yëpp exposé nañ ko fi waaye ci njëg lu xaw a cher. parce que soo xoolee xar yi di nga daan jaay cent cinquante mille heure yi mu ngay jaay deux cent mille wala deux yu teg lekku xar yi nga daan jëndee saako ay douze léegi mu ngi ci 16500 wala ci loolee nag situation wu dëkk bi nag nara gàllankoor tuuti njaayum xar bi waaye nag ñu ngi ànd ak gëm-gëm. Euh, client yi moom instant yi ñu ngi ñëw par nanka nanka à xeex yi ngay gis nii rek ñoom noonu la ñuy daw quoi moo tax quoi. moom suñuy barrière nañuy teg rek. ndax booy moom bu ñëwee doo la mën tey jii dañ doon génne un mois avant. mais sant bi xeex beeg yooyu noonu xam nga da xool situation bi mu demee. lu jëm ci wàllum kaaraange xar yi ci jamono ji nag jaaykat yi nekk fële ca commune bu Gueule Tapée teg nañ ay matukaay yu dëgër ngir mën a jaamaaloog sàcckat yi. lii mooy suñu liggéey suñu investissement yëpp élevage kon nag bu desee lu dul jaay te tabaski jot na foog mu génnee suñu xar yi dañu jël suñu jël suñu matuwaay mooy manifestation bu amee bu nu nangu fii kenn taal pëna mais suñu liggéey moom kenn duñu ko yàqal loolu nag bañu ñu si dara moom parce que nag ñu jël suñu ay millions yu millions def ko si ay xar ay samba boy ñëw fële naa dañuy def naka suñu noonu jaaykatu xar yi nag ñoom jamono ji li ñuy xaw a ragal sax mooy xari yi manqué président bu association wu éleveurs yi nag mel ni moom itamit ku xaw a tiit ci mbir yi ndax bañ ko woowee téléphone moom mee nag di ñu xamal ni benn éleveur du jël risque indi ay xaram fii ci Dakar ci contexte bii ñu ne